aj ga ñu jàpp ne yéwénal nañu ko ba yàlla nangu na ko te payam mooy ajjana moo di aj goo xam ne kooka rafetal na farata yaag sunna ya ba noppi itam xeeti jaamukaay yépp da ko dox ak tànkam niki ba mbàyyi koo màkk jëm minan dafa dox ba mbàyyi koo minan ñëw arafa dafa dox ba mbàyyi ko arafa ñëwaat musdalifa dafa dox ba mbàyyi ko musdalifa jëm siwaat minan dafa dox ba muy dem di wëri tawaaful ifaada nga xam ne kon daal diggante yépp da ko dox ak tànkam fépp foo xam ne taamu nañ ko fa taxaw tam ci aj gi niki almasharul xaraam mu taxaw fa nga xam ne kon yooyu yépp moom matal na ko bu baax a baax mu boole ca nag la ko yàlla dénk ci wërsëg mu joxe ca ngir yàlla ni ki leele ñam weeru wax aj goo xam ne daal yii daje na ca jàpp nañu ne ku ñu nangu la te payam mooy àjjana rekk alqismu xaaj bi ak taalisu bi aji ñetteel min aqsaami diinil baaxisi ci xaaji diine yàlla mi aji yónnee baabu tasawuf mooy buntu tasawuf aljaalibu bi aji ñoddee di taxaru fi jëm ci xam yàlla nee na wees nañ ñaari xaaj muy xaaj bu jëkk aji woon ci al iman muy tawxiid xaaj ñaar tam wees woon nañ ko aji woon ci al islam muy fiq yu ñëw na ci xaaj ñetteel bi te mooy al ihsaan te moo di at tasawuf kon neen li mooy xaaj ñetteel bi bi bun tasawuf bi nga xam ne mooy ñoddee jëme ci xam yàlla ihsaanukum seenu rafetal an ta'budu moo di ngeen jaamu dal mi na ni boroom xéewal ya ka annakum ba daanaka yéen taraw na hoo da ngeen ko gis bil a'yuni ca bët ya dëgg-dëgg ihsaan moom nee na mooy ngay jaamu yàlla te rafetal jaamu ga mel na yaa ngi jàkkaarloog moom nga xam lépp loo ci man ci lu koy tax mu gërëm la ci wàllu zahir ak sellal nga ak teggin ci wàllu baatin da nga koy def ba mu mat nga xam ne boo ko dee seet mbir mu nekk rek am na zahir am na baatin zahir ba mooy la fiq di àtte baatin ba mooy la tasawuf di àtte bu fekkoon de lu aju ci julli man nga ne lu aju ci wàlluk laab ga ak wàlluk matal ràkk yi ba mat ci zahir loolu la ca fiq amee waaye nag wàllu teewlu màggaayu yàlla ak xelam lépp nekk julli gi bay jëm ci mbiri àdduna lu mel noonu moom la tasawuf moom di seet ba tey boo doon joxe sa yëf fiq moom li muy seet mooy ndax li ngay joxe sañ nga koo joxe wala sañoo koo joxe yaa ko wala moomoo ko ndax am nga ko ci dagan wala déet lu mel noonu la fiq di seet waaye nag ci wàllu tasawuf moom day seet ba xam ndax ngir yàlla rek moo tax di joxe am na ngaa bëgg ku la ca tagg am na ngaa ragal ku la ca xas ak yu demee noonu nga xam ne daal mbir moo seer rek lay àtte zahir sa mooy fiq lay àtte baatin ba mooy tasawuf kon nag soo sàmmoonteeg ni sharia rëddee ci zahir ba mu sell ca baatin ba itam nga sàmmoonteeg xaqiiqa mooy yàlla yi kese tax nga sàmm ca teggin rek kon daal ngay boole fiq ak tasawuf loolu nag mooy tax ñu nangu jëf ja incha allah ba tax mu ne ihsaan mooy ngeen di jaamu yàlla ba mel ne yéen a ngi jàkkaarloog moom ndax boo ko seetloo sa kilifa goo fonk nii rek ci àdduna bu lay jëfloo te teew nga jàkkaarloo moom da nga cay sàmm loo man ci luy tax mu gërëm la di ca moytu lépp loo xam ne yaakaar nga ne dana teew mu gërëm la kon nag sa borom mi na bind fekkee saa yu nekk yaa ngi koy teew la ni jàkk mi ngi ne jàkk ci yow sa biir ak sa biti lépp loo koy defal rek nga sàmmonte càg loola loolu mooy ihsaan in lam takoonoo ndéem nekku leen xadra ay tumooxu di ko gis fa xadra akum kon moom gis na leen fa xadra akumoo mooy nekk ci way wi faraqiboohu na ngeen fugloonteeg moom fugloonte mooy bàyyi ko xel rek dafa wax ne sa borom moom bu fekkee gisoo ko itam moom mi ngi lay gis te koo xam ne mi ngi lay gis bi rek biti te yow gisoo ko sax kooku nga war a gën a bàyyi xel bu baax a baax kon fugloonte mooy bàyyi xel sa borom foo toll mooy almuraqabatu xaddu tasawuf dëgg-dëgg tasawuf la dal Ghazali fa al imaamul Ghazali tajriduna mooy suñu rafleel xuloo banaa suñuy xol lil waali ñeel yàlla mi kilifa maxantiqaar yi kulli ma siwaahu ànd ak xeeb lépp lu bokkut ak moom xalban ci ab xol waxaalaban ak ci ab mool hadana yal nanu jubal allah yalla deug deug tasawuf ni ko al-ghazali gatal neena moy saxol nga summi ko bam set wecc wecc wecc ci lepp lu dul yalla xeb lepp lu bokku te yalla fonk yalla bam jaral la lepp lepp lepp te dara lu dul yalla nak bañ la jaral dara dara ci genn wet kon bo fonké yalla yank ko mom kep ci sa xol mu jaral la lepp ci biir biti leena lu bokut ak mom jaral la dara dara dara ci biir biti lolu moy deug deug tasawuf ci niko al-imam al-ghazali gatale awwalu wajibin aji jekki aji war halal muridi ci talibe bi tahsilu zadihi moy amal yobalam ba min at-tauhid ci xam xamu tauhid qabla istikhalihi ci ñeuk soxla wom nga bil infiradi ci wet manam ci beru bi zikr ci tuddu yalla wahdahu mom rek wa bil jihad ak ci jihad bakanam ñen ab talibi nak bala jekki jekki beru di sikara ka beuri bakanam day fekk mu jang aslaf ba xam ab yobul ci tawhid xam ab yobul ci fiqh xam ab yobul ci tasawuf yett yoy bu ci nek mu am ci yobul bo xamne dana ko mëna yobuloo nak akay doora beru nak di beru di sikar ak jihad bakanam tax mu ne muntahijan mbir muy aju soobu madhaba ahli sunnati yoonu ñun sunna maxal jamaahati ànd ak mbooloo ma watil kata loolee al junnatu moo di pakk ba bu ne pakk ba nag mooy kaaraange la mu farlu nag ci xam-xamam ak jëfam yépp dëppoonteeg yoonu ahlu sunna ñun sunna ñun sunna mooy yonante beeg saxaaba yi lañ nekkoon ak ña toppoon ca ñoom lañ nekkoon ak ña ca toppaat di rafetal lañ nekkoon ba tey jii loolu rek mooy yoon wa kon aw ci yoon woowee ànd ak ña ca aw mooy taxa mucc id ngir dulumaatu bidaxati ci qaadin lëndëmi bidaay pasteef wala lëndëmi bidaay pas-pas takku fu danañu fekk anwaarat tibaaxil haadi leeri topp sunnas aj jubal ja ndax neen day def ne top bida dafa baaxut boo xasee top bida rek dalay xañ leeri top sunna bida ak sunna dañoo safaanoo soo xasee top bida rek mu xañ la top sunna bu ko defee lëndami bida itam fatt leeri sunna ba leeri sunna bi jàll si wa baax dafoo nekk na ci gannaawam moom tawxid taxsiilu maa amal la nga xam ne yu saxifu dana wérale bi ci moom foroodan xëy ni faratay jëm fi ma ci la nga xamne sarraho wëral nañu ko katuhuri ni kilab wa siyami ak koor wa salati ak julli wa hajji baytillahi ak aj ñegu yalla ba wa zakati ak asaka neena bo jiitale xam lu yobbal ci tawhid ba agal da nga fexe ba tawhid ba nga dëppale ko pas pasu ahlu sunna aw fa mbolom wa sunna aw da nga cey tek nak jang asluf ci fiqh ba xamé farate jëm yi nga xamné dañ la ko sant té kenn mën la ca yobale faaw ya koy defal sa bop nga fexé ba am ci yobal bu baax niki mbirum laab ak mbirum julli juroom nga xamné bis bu né laab gogu ak julli juroom yi du mëna ñak ndax laab gi moy tax julli yoyu baax lu mel nonu war nga ko xam bu baaxa baax batay cër ji la yàlla dénk muy cër yi juróom ñaar war nga xam bu baax a baax la ci yàlla bëgg ak la mu ca bëggut ba nga mën a sàmmonteeg ndigal yi bàyyi tere yi lu mel ne weeru koor balaa ñëw war ngaa jàng bu baax ba xam lépp la ci aju bala nga caa dugg asaka boo amee alal joo xam ne asaka war na ca nga góorgóorlu bu baax ba xam lu aju ci asaka aj màkka bu la waree itam bala nga caa dugg nga daal di fexe rek ba xam la aju ci aj màkka ga nga xam ne kon farata ci xam-xam moom mooy loo toll rek ci say mbirum diine xam ko bu baax a baax doo jekki tañaxu rek ci genn wet looy dugg rek da nga koy xam boo ko xamul laaj ko ña ko xam te tënku ja bu baax bu baax dafa gannaaw loolu nag yaslu ko dana sóobu in raama dem sàkku na alwus wala àgg ci yàlla xalaa ya day mukammilin ci ñaari loxo yi sëriñ bi aji matal yàq foo bab dana xentu mooy bab dana topp arrasoo la yonante ba nga xam ne yaquuduhu dana ko mat bil xilmi ci xam-xam wal xibaadati ak jaamu yàlla kama yu rabbihi ni ki mu koy tarbiya bi tarkil aadati ci bàyyi aada nen gannaaw boo amee yóbbal nag ci tawxid ak fiq kon tasawuf moo ci des tasawuf nag moom la ci gën a gaaw mooy day jaxi waaye boo gisee sëriñ boo xam ne aw na ci yoon wa ba ay kumpaam denca ba amub cër ci yàlla nga dem nag ànd ak moom mu teetale ci yoonu yàlla moo lay gën a noppal ngay jéem a beru di def say pexe bopp moo ma tax mu ne kon na ngay dem sóobu ci ñaari loxo yi sëriñ boo xam ne bu mat la bu aw ci jéego yonante bi nga xam ne àgg na te mën naa àggale nga xam ne àgg na te mën naa àggale boole ja nga xam ne lay womat ci xam-xam ak jëfe xam-xam ba di la yar ci bàyyi aada aada mooy ni nga miin rek nga xam ne danga aada woo bu xëyee ndéego ñu wax ndékki bu añee bu jot bu añ jotee nga añ bu dee jotee nga reer bu tëdd jotee nga lal ba mu jekk daal tëdd nelaw yu mel noonu mooy aada dala yar nag ci bàyyi mboolem xeet yooyu nga miinoon ci aada nga xam ne moom daal lépp looy jëfandikoo ci lekk ak naan ak wax ak nelaw yépp rek da nga koy tekki dem ba loru ca dëgg-dëgg boo ca loro itam faj ca loro ca képp yem ca waaye lañ ca aada woon moom da nga koy teg fële noonu la lay yare ki la yar nag moom mooy xam rek na gën ci yow mu la yare noona faman nasala ku wàcc bi mahmahi tasawufin ci màndigum tasawuf bi xayri tashyihi murabbin ci ludul gungeeg sëriñ bi aji tarbiya xadd kamu la bopp mat na fa innahu naka moom yaxoodu dana xuus fii lujj rada ci lëggum alkande wala yu jiite du dikk min hu ci moom shay'un dara abadal mukk ndax nee na tasawuf dafa nekk màndig mu yaatu yaatu moo xam ne boo jekkee jekk na ci cirib te andulaak sëriñu tarbiya bu mat a mat bu xam-xam yoon wa rek da ngay yàqule ba noppi te doo jariñoo moo tax mu naa da ngay xuus ci lëggum alkande te dara du ca dikkee li annahu ngir naka moom yaquuduhu dana koo mat a seytaanu seytaane wa nafsu ak bakkan wal hawa ak bànneex kama abaanoo naka ñu ko birale ku jekki-jekki bëgg aw ci yoonu boppam rek ci mbirum tasawuf moom di jëf mucc da koy jafe ndax day mel ne lu mu jéem-jéem rek seytaane jekk ko ak bakkanam ak bànneexam di ko wommat jëme ko foo xam ne rek du gën ci moom wa man yaxud ku xuus baxaral xaqiqa ci géejug xaqiqa bilaa fulki shariha ci lu gaalu shariha fa hum ko kon dofam nga injala feeñ na mu ne nag na nga moytu ne defar xol bi rek am solo kon daay topp rek tasawuf waaye duma ci sàmmoon teg shariha nee na shariha mooy gaal gi faaw moom ngay xuuse ci biir ndox mi xame ne xaqiqa géej la te gaalu shariha lañ koy awe tax nga mën a jàll kon ngay fonk shariha bu baax a baax boole ci xaqiqa nag mooy boole zahir ak baatin mooy tax àgg wa man yaxit ku jeng xani sawaadi walis mbooloo ma al ansa yi mu gën a màgg bila dalilin ci lu tegtal waadixin buy aji leer lam yaslam lu mucc idi ngir yaxshaa dina ragal saadin aji rañaan dalaalan réer aw halaakan wala alkande yaxshaa kook dana ko dikkal mooy dana ko muur mooy dana ko dikkal rek fii bu nay yaati tarix yi ci seli yoon wa nee na boo bëggee dem ak sa bopp rek bañ a ànd ak ku la gunge soo tuut da nga réer daa mel ne yoon wi da yoonu guddi way rañaan te mu bari ay sel lool lool nga xam ne bu fekkee ne àndul ak ko xam yoon wa dëgg dëgg rek da nga jàdd digg yoon wa aw ca sel ya te bu wóotul kon sànku mbaa alkande mën na laa dal kon de wane ne daal tasawuf moom mbir mu day waar la bu jekki-jekki jéem cee dugal sa bopp na nga ca ànd ak koo xam ne kumpaam dañ na ca mu teete la ca muqaddamatun lii lu ñu jiital la tanabbahoo na ngeen yeewu yaa ayuha shubaanu yéen waxambaane yi xaadakumoo yal na leen womat almannaanu xéewalekat bi ilal xudaa jëm ci jub fii anna sunnata nabiyina ci naka sunna sun yonante bi al amini ka di kuñ wóolu alayhi yal na doole nekk ci moom afdalu salaati ngeen ci dolli teral ku laxina ci bépp waxtu xam leen ne sunaam si kat kaadat xaw na turaadee fi ko gis karas bi daarin muy mel ne ki màndargam kër muy jaaxiti kër xat xafaa bopp ràpp na fii de zamaan ci jile jamono li mu diyil xunafaa ngir wéyug way sell ña njulit nee na kat yéen waxambaane li ma leen jëkk xamal mooy da leen wóor ne suñu sinante bi kat ña xututa xam ne bu baax a baax ndax ña ko xamoon dëgg-dëgg te sellal dañoo wéy nga xam ne boo dee xool sunna daal day mel ne kër goo xam daa gent ña fa nekkoon bañ fa toxoo yàgg na xool bu baax a baax mooy tax nga xamee ni fii kër fi nekkoon da des ci jeexit kër ga daal bariwut moy sunna yi daal di ma dem neena boobu ba xaw a raaf ba nga xam ne xam ko dëgg dëgg ci yooyu jamono lu jafe jafe la te la ko waral rek mooy ña ko xamante di ko xeñtu booba dañoo dem ba tax mu ne watta bi xataa te topp nay sunna sa shiya mu shiyoox yi jikko yi sëriñ sa zawil huda ñadi waroomu njub wa nuuri ak leer wa rusoox akuk sax te neena kat ni sunna raafe non la yoon tasawuf nga xamni mom la gaay yu baax ya awon tam xawaraafe ndax deug deug tasawuf ci yoy jamono momit gis ko ci aw man ca awale yoy jamono jafé na lool tax mu ne jikkoy serigne sa nga xam dañoo juboon te am leer te sax ci xam xam noné sunu yonante bi rafé non la seen jikko ya ak seen jaar jaay ñomit rafé ba naqare xam dara dara it ngir turika bayef na iqtifaaw asari salafi xentu saway way jituña li bidah ngir ay bidah qad zuyinat yoy rafetalef na len ben khalaf ci digante way wotu ñi wa khalaf moy kotat moy ñi fi wotu ñi fi jitu won da wax ne jaar jaar gaay bax yi fi jitu won dañ ko baye baye ba kenn xamatu ko top ay bida yo xamne rek ñi fi nek leg ñoko suwer mu melni dara la te ci deug deug du dara fasari ho kon ngeen gawantu il hilmi jëm ci xam xam mudhinina bir mu ngeen di way mokk naaw yi na tey way yéene wacc allah jëm yàlla ajmayi na mboole seen kon ndegam xam dëgg dëgg dafa jafe da ngeen gaawantu fas yéene xam bu wér a wér xam gu sell te yàlla tax te wa man nahaakumoo koo xam ne tere na leen anit taalum walis xamlu fa huwa moom xalifatullahi ni mooy wuutaatu gañu rëbbu al mujrimi kay aji tooñ fi kulli maa ci lépp loo xam ne yuf si duhoo dana ko yàq wallahu te yalla jalla magna hasibuhu moy aji hisabam yowmal jessaay ci bisu pay ba wal wacce li ak njaqare la den dagam non la xam deug deug jafé nak ku leen di ayé jang ba xam lu baax man ko top rek xam leen ni da wut setané lu setan den yaq mu diko ko yaqal ku leen di ayé dal jamono yi jang ba xam deug deug lu baax ba man ko xentu ku leen koy ayé xam leen ne setané la wala bok da wutu seytaane di yàqal doomi aadama yi ñi leen seytaane di yàqale kooku nag nee na bu ëllëgee rek yàllaa koy fay jëfam ju bon jooju nga xam ni moom la jëf ku def noonu daal bu ëllëgee yàllaa koy fay taxawaayam bu ñaaw boobu mu taxaw id ngir kullu man képp koo xam ne mën a tere na fii de zamaani ci jile jamono bi na taalu mi ci xamlu fa indahoo naka moom daxa woote na li bidaxatin jëm ci bidaa shanihat bi aji ñaaw idi ngir alhamalu jëf in lam yakun dem nekut bil xilmi di ànd ak xam shaabaho kon rax ko rax ko xalalun ak yàqu yoo xët mooy yàqu nee na jamono ji ni nga xam ne moom la ci réer gi yaatoo ak xam lu baax ak topp ko nim ci jafee képp kuy aaye nit ñi jàng ba xam lu baax loolee kon da leen di woo rek ne leen kaay leen ci bidaa bu ñaaw bii nga xam ne ku ko topp rek yàqu tax jëf moom nee na bu antaku xam rek lamu yàq mooy ëpp lamuy defar mooy jëf moom faaw rek day ànd ak xam mbaa du baax falay li mu xam-xam wal xamalu ak jëfe xam-xam ba jawharaani yaari wurus lañ ba yaari cosaan lañ yaj lu baani bee danañu ñoddee li xayra yit daare ni jëm ci yaari yiwi yaari kër yi nee na xam lu baax te di ko def ak xam safaan ba te di ko sori bu baax a baax ngir yàlla nee na loolu daal ci lañu amé yiwu aduna ak alakhirah yiwu aduna ak alakhirah dal yépp ñu koy amé ci xam lu baax te diko def ngir yalla ak xam safaan ba te diko moytu ngir yalla wa ashraful aslayni gën ja teddi yaari ciosan ya hilmun moy xam xam quddima bob jital def nako kama atani ki dike bi ci lolu hadisu man hadisu ka nga xamne sama yëkëti ko na dañoo bol tag xam xam ak jëf ne la ñoom ñaar ñoy taxam yépp yiwu aduna ak alakhirah mu ne nak taxul ñu yemoo xam xam mo ëpp daraja ndax da melni xam xam moy fondement bi xamne bu fekke amo fondation tabax du mëna juk jëm kaw waye batay nak bo amé fondation kessé tabaxo itam do am fo dugg kon ngay boole xam ak jëfé waye mën la fexé ba jëf té amo xam waye bo xamé té jëfo itam day melni ko fond rek bayyi tabaxu jëm ci kaw su boba do am fu dugg day son rek watax mu ne idi ngir kullu hamilin jëpp aji jëf bila xilmin jul ab xam xam yura bob def nako gis fa sa yo jefam je mislu habayin kep ab pand la mutira bop mi saref nako ina kuy jema jëf te la muy jëf xamuko jëfam jëpp day melne pënd buñ wasaare rek mooy du jariñu ca jëfam jooje waaye it wa man xawaa ku làq xel man xam-xam wala sa yaamal te du jëfe bi ci xam-xam ba fa indaxoo naka moom ximaarun kem am mbaam la yaxmilu moom dafa sëf ay téere rek ba tey nee na boo amee xam-xam bu bari lu mu bari bari te jëfewoo ko rek kon yor nga lu ama am njariñ sonn ci coono bu rëy rëy te jëriñu woo ci mel ne mbaam xam nga mbaam tey boo ko sëfoon ay téere yanu na lu am njariñ dara ca sonn fu nekk mu lang-lange ko fa waaye du ca jëriñu mu ne nag xam-xam bi it noonu la bu fekkee ne kooku jëfewu ko du ko amal njariñ da ca sonn ba noppi du ca jëriñu yaa ma chara shubbaani yéen mboolem waxambaane yi iqbaloo nangu leen min ye tukkee ci man nasihatan ab laabiire tax di ba dina jubal allasiina ña nga xam ne xabiloo nangu nañ ko nee na yéen mboolem waxambaane yi maa ngi leen di bëgg a laabiire laabiire boo xam ne da ngeen ko nangu bu baax a baax ndax ku ko nangu rek daal di amu gindiko mi ngi tàmbalee nag ci taxal la moo xam lu leen alxilma xam-xam li waccillaah ngir jëm yàlla duunal munaafasati ci dul ak ëppalante wa tabaahi ak puukaréewu da ngeen farlu ci sàkku xam-xam te yàlla dong dong tax bu leen ko def rek ngir ne diw maa ko ëppale xam-xam wala diw ëppale wu ma xam-xam ak di ko puukaréewoo rek di ko darajawoo mu ne loolu ëpp naa def da ngeen ko xam na ngeen jéem a xam xam-xam bi rek te yàlla dong tax laa taqsudoo bu leen jublu istimaalatal insaani sàkkoo jengal nit lakum jëm si ci yéen wala taqaddumal aqraani du caagéenu jiitu maasiya bu leen jublu ci xam-xam bi rek nit ñi dëgmal si leen topp seen gannaaw wala nekk ci kanam seeni maas jiitu ñu topp ci yéen loolu daal nee na yëfi àdduna rek la da ngeen di jàng rek ngir xam lu baax def ko ngir yàlla ak xam safaan ba moytu ko ngir yàlla fa man taxallama ku xam lu limaa ngir li nga xam ne xat zukkira tuddeef na ko fa sax yuhoo jëfam ja jaraa daw na fii haddimi diinihi ci màbb diineem ja wa baaxate jaay na aaxirataho alaaxiratam ja bidduniyaa ci àdduna wa baaxate sànku sax yuhoo jëfam ja waxaaba te mu sooy sax yeen ci jëf nee na ku jàng te yàlla taxul rek mel na ngir yi mu wax léegi ngir yëfi àdduna kese yi rek day mel ne kon ba ngay màbb diineem te yëgu ko ma ngay jaay alaaxiraam di ko jëndi àdduna mi nga xam ne amul solo te kon jëfam sànku na mu sonn ba noppi te jëriñu wut idi ngir safxatun pas-pasu njaay xadir te jaaxaa bopp yaakaaroon na ko xasirat perte na wa bay xooxoo te am njaayam tijaaratun am yaxantu la maara bihat moom bénéfice wut nee na daal képp ku jaay àllaaxira jëndi àdduna mu ñàkk solo mi xamal ne kon perte nga ca sam njaay amoo ca dara daray tono wa an na man ak naka nga xam ne àllamahoo xamaloon na ko xadd kaana nekk na mi awa mi awaana di dimbali waakun la xooñeel ko xalaa xisiyaani yi ci moyam nga nee na koo xam day jàng te yàlla taxut boo ko jàngalee xam-xam ba day mel ne kon yaa ngi koy dimbale ci mooy su boobaa da nga bokk ci bakkaar ba mooy fa xoo moom musharikun aji bokkaale la la xooñeel ko fi dorri ca lor ja kaman ni ki nga xam ne yeb yo dana jaay asay fa jëlas ja ahlul makri ñooñ pexe ne day mel ne ku fekk kuy def ak luxóor nga jaay ko jees yi maanaam ngànnaay la mu koy defee na muy amee bàkkaar ci loola ba tey moom miy jàngal kay jàng te yàlla taxut noonu la ciy amee bàkkaar fal tax sudoo na ngeen jublu arbaxatan yent xindab tidaa taallumin fa tàmbali xamlu li koy tafoosoo ngir ngeen tuufu mooy ngir ngeen am rek bil xoddaa ci jub ga ene bu ngeen dee tàmbalee jàng xam-xam da ngeen ciy fas yent yi muy bëgg a wax awaluha aj jëkk seen alxuruju moo di génn ga min dalalin ci réer wattaani ñaareel bi nafu xalqi dil jalaali mooy jariñ mbindee fi borom màgg ga taalisuha aj ñetteel seen al ihyaaw mooy dundal ga lil xuloomi ñeel xam-xam ya war raabixu ñeenteel ba alxamalu mooy jëfe ga bil maaloomi ca lañu xam nee na yent yi mooy booy tàmbalee jàng da ngay fas yéene génn ci réer gindiku ba xam fa ngay aw loolu ngay njëkk a yéene ci njàng mi ñaareel bi mooy fas yéene jëriñ bindee fi yàlla ci xam-xam bi nga xam ne moom ngay jàng ñetteel bi mooy jàng bi ngay jàng nga fas yéene ci dekkal xam-xam dundal ci xam-xam ndax xam nga xam-xam bu fekkee ña ko xamoon rek ca lañ yem keneen jàngaatu ko ah kon xam-xam day dee doonte jàng ko te jàngaliwaatoo koy du tee dundal nga ko maanaam boo ko dee jàng nii doonte doo ko jàngaliwaat du tee yaa ngi koy dundal ndax dooleeku nga ci li mu borom xam-xam ya teew nag boo ko mënee jàng ba noppi jàngaliwaat ko moom moo gën du ko ñeenteel nag nee na mooy nga fexe ba loo xam rek jëfe ko ngir yàlla kon yent yi nee na booy tàmbalee jàng moom ngay fas li cheikhina ñel na sunu sëriñ zarruq zarruq baytaan yaari bayit huma yoo xam ne ñoom ñaar yu rak bi yànd nañu yar man képp koo xam ne xawaa làq na dafa xuman ak dégg mu ne man talaba ku sàkku an xilma xam-xam yu baax yi mbir moom dana puukare wonteeg alfuqaha way dégg yu fiq bi xilmi yi ci xam-xamam ba aw li yu maar yi wala ngir mu weranteeg asufaha way desee diya aw li yennaal wala ngir mu am aljaax daraja inda naas fa nit ñi baa kon mu dellu binaarin ci sawara wax wa tamit moom moom du iflaasin boroomu perte la zaroq sëñ dana koy tudd lu bare bari sëriñ bu baax la nee na am na yaari bay di wax yoo xam ne daal ku yeewu boo ko déggee war caa xamee sa bopp bu baax a baax te moytu loolee muy wax dal la daa waxam ne kuy wut xam-xam ngir rek bëgg koo xëllantoo borom xam-xam yi wan leen li ma xam xamu leen ko mbaa bëgg cee weranteeg ñu gàtt xel ñi wala am ci daraja rek fi kanam doomi aadama yi nee na yii kum tax jàng xam-xam ëllëg sawara rek ngay dem ànd ak perte waxut da limeef na min aada bi jiit taxallumi ci teggi ni boroom xam lu ga firaaru foo dawam ga min durri kulli muslimin ci lor bépp jullit bokk na ci teggi ni képp kuy wut xam-xam mu fexe ba di bañ a lor benn jullit ah ndax kuy wut lu baax du tooñ day jéem kay buñ ko tooñee mu jéggale waaye nay moytu moom di wut xam-xam ak lu baax ba noppi nag di lor benn jullit waxut da limeef na min xaa ci teggin ya kaw nu xoo nekkam nga mujtahidan di aji farlu fii fardihi ci farataam woo ma ak la nga xam ne xawaa làq na ta ak kudan ak feddaliku wala yekkunte bu mu nekk mu wax xira salaati di aji yeexe julli ga bi xëyri ma xudurin ci lul ngànt xanil awxaati wala si waxtu ya te bokk na ci teggin yi booy wut xam-xam da ngay farlu ci jox farata yi ak sunna yi nga xam ne yu feddaliku lañ góorgóorlu ci bu baax a baax na nga moytu nag rawale ak julli mooy na nga moytu ak julli raw la bañ ko julli ba waxtu wa jàll te du ngànt nga xam ne yaa ko tey loolu moom yeexe julli ba waxtu wa jàll daa bokk ci bàkkaar yu mag yee mag ndegam yaa ko tey bàkkaar bu rëy rëy la wa kaw nu xoo nekkam nga it aydan ba tey sax yéen di aji tabe abaran faaw bi xilmi ci xam-xamam ba ba daa feeñ na mi na ta addu bi bokk ca tegginu nga bokk na ci teggin kuy wut xam-xam lam xam daal mu néewoo mu bari mu tawee ca bu baax na nga koo xablewaat bu dee téere itam mën na nga koo ablewaat kenn mën caa jariñoo kon fa kullu man képp koo xam ne xat baxi la nay na bi ilmihi ci xam-xamam fa innahu naka moom yóbbu talaa def na ko nattu xablal mamaati njëkk deega ne képp koo xam ne daa xam ba noppi nay ca faaw rek balaa faatu yàlla nattu ko waxu da limeef na min xaa ci teggiin yi kaw nuhoo nekkam nga mu waqiran di aji fonk lil xilmi ñal xam-xam bi taax fii bi ca màggal nga lil la si ñeel la nga xam ne xaraa jàng na ko xaraa moo doon cosaan mu def ko xaraa ngir woy wi ne bokk na ci teggin yi kuy jàng muy góorgóorlu ci fonk xam-xam bi fonk goo xam ne àgg ci jumtukaay yam koy jàngi sax mel ni àlluwa mbaa téere da koy fonk lool ba ni mu koy bëgg a waxee woyu ci topp mooy falee sa yam bax yi du yellu la xoo ñeel ko wabaxu kitaabin teg ab téere aw lawxin wala àlluwa aw waraxat wala aw kayit xala turaa bi ci suuf da ngay fonk jumtukaay yi nga xam ne sax ci ngay jàng xam-xam bi ba doo teg mukk ab téere wala àllu wala kayit ci suuf téere da nga koy ormaal ba di ko teg ci kaw boo ko rombee sax ñu teg ko fi suuf nga gaaw yëkkati ko waxay suma ataafu fi dikkee mu ne la xalaa yi bàyyi ko ci wana wa baax da xabaa yi ci gannaaw ak faj aajoom mahastin jaayit ànd ak tàncu tàncu mooy ba mu demee ci wana wa mu raxas sobe sa ak ndox loolu mooy tàncu suma araada toog mu na mu almasa laal nga lil kitaabi ñeel téere ba fal yax si na raxas al yadeen yaari loxo ya bistihbaabin ci sopp aw yatawadda wala mu jàpp su ma yaaxus topp mu door a jël al kitaaba téere ba mu bajji lan mbir muy aji màggal muxtariman tey aji ormaal yax wi kon mu làq tawaaban ab yool su demee ci wanaw ba génn nga xam ne kon loxoom laal na sobe ndax da doon raxas sobe sax ci loxoom kon bu génnee bu mu jekki-jekki daal laal téere bi na raxasaat ñaari loxoom bañ set ngir jubloo màggal li muy bëgg a laal muy àlluwa mbaa téere mbaa kayit bu ma nee jàpp sax nee na jàpp ga moo gën door a laal nag téere ba mbaa àlluwa ja mbaa kayit wa bu ko defee rek mu ànd ak màggal xam-xam bi normal xam-xam bi daal di am tuyaaba waxut da limeef na min xaa ci teggin ya kaw nu fa nekkam nga muxtariman di aji ormal li cheikh yi ñeel sëriñam ba wa xaadiman tey aji liggéeyal ko muhaziman tey aji màggal ko it ngir xii la waxees na ne ina naf xaman nag njariñul ka nga xam ne taxal la ma xamlu na niita ajeef na ko bi ijlaali suyoox ci màggal sëriñ sa alxulamaay ña di way xam bokk na ci tegg yi ni kuy jàng xam-xam mu fexe bay fonk ka ko koy jàngal ak mboolem sax borom xam-xam yépp rek mu fonk leen rawante na ka koy jàngal di leen lëggéeyal di leen màggal ngir yàlla ndax nee nañu kem ni nga màggale borom xam-xam yi rek noonu la sa njariñal xam-xam di toll wayu xaddu def na lim min shuruti talabil hilmi ci sarti sàkku xam-xam sittatu asiya juróom benn yëf du waddi yooyu danañu àggale li rajo di jëm ci jub nee na am na juróom benn yëf yoo xam ne nee nañu wares naa sàmmun teg moom booy sàkku xam-xam dana tax nga àgg fa nga jëm awaluha aj jëkk seen asabru mooy muñ xaalal jooxi ci xiif ba alwasati ba digg doomu ka asadi niki gaynde bëj njëkk mooy na nga mën a muñ ab xiif xiif bi nag moom du ëpp ba ngay tayeel mbaa ngay wéré di mbaa ngay tàggoo sawo da ngay fexe rek bu booy lekk bala ngaa regg bàyyi te bala ngaa lekk rek xiif loolu rek boo ko defee doy na waaye bul ëppal xiif bi ngay def lu yam rek da ngay ñëme xiif kon ni gaynde ñëme ab xiif wataani ñaareel bi junniptum yàlla na soreleef leen xalatan njuumte itaalatul julloo si mooy yàggal jataay ba fi taxallumi ci xamlu ga kan nasri ni ki am tan bibtira ridal muallimi ànd ak sàkku ngërëmal aji jàngale ja ñaat